jamono yi moo yëngal suñu réew ci pexe bu bon moo xamante ne ñoo ñu ngànk Sénégal tey ñoo ko laal ngir faagaagal ki nga xam ne jàpp nañ ne moo leen gën a sonal ci wàllu xeexu politique muy Ousmane Sonko ak ñi mu àndal. ñoom nag dañoo jàppoon ne bu ñu taxawalee fiir googu ba jàpp Ousmane Sonko dañ koy wéetloo ba nga xamante ne dootuñu am kenn ku leen la jël tey jii nag suñ jotaay bi dafay wane ne loolu ñu doon mëbët di amuñu ko ndax mbir bi dafa gën a yaatu ñi nga xamante ne tey jii ñuy wax ak yéen mooy ay kuréel di ay parti politique di ay mouvement citoyen yu ànd ak Ousmane Sonko en ak Pastef di xeex ngir seet naka la ñuy tegee Sénégal ci yeneen yoon yeneen yoon woo xamante ne da koy jëmale kanam kon mbir moomu nag dafay tàmbali rek xeex buy tàmbali la ci kanam la jëm te balaa muy yàgg di ngeen gis bu baax di ngeen xamee bu baax fi ñu egg ci xeex bi ak fi ñu ko jëmale euh, kon ñoom defe naa ne dañoo sol mbubbu gàcce ngir summi li nga xamante ne mooy malaanu kiiraayu député Ousmane Sonko gàcce goog mag a mag a mag la ci am ndax dañ ko wéerul fenn wéeruñu ko ci dëgg wéeruñu ko ci yoon loolu dafa ruslu ci ñoo xamante ne nee nañu kat ñu ëpp doole ci réew mi ñoo xam ne ñoo yor kilifteef réew mi war a joxe nag yoon woo xamante ne ak taxawaay boo xamante ne royukaay lay doon ñoom ñu wane li nga xamante ne mooy li li nga mooy li wuute ak loolu. loolu moo tax ñu ne tey Sénégal dafa toll ci selewe yoon selewe yoon woo xamante ne nag faaw ñu xool nuñ koy nuñ ciy duggee ndax dañuy jàdd koñ. topp ñi nga xamante ne ñu ngànk réew mi te nekk ñu fi leneen lu dul jariñ doxandéew notkat yi yi nga xam ne ñoo noot Sénégal jamonoy maam ba léegi ñoo fi nekk dañu noot jël suñu alal ñoo ko moom jël suñu koom-koom ne ñoo ko moom ñooñu nga xam ne ñoo leen fi teewal amuñu benn itte bu dul taxawal leen fi fa fàggaagal suñu intérêt ñun ngir sàmm intere intérêt doxandéew yooyu yi nootkat yooyu loolu wenn yoon la tey jii nag ndax dañuy topp yoon woowu wala dañuy dimbali yoon woowu ànd ak ñi nga xamante ne tey jii dañ ne système bi fi nekk baaxul système ba fi nekk jamonoy tubaab bi ba léegi moo fi moo fi wéy système boobu dañ ko fi jëlee ndaxte kat loolu mooy njëriñu Sénégal mooy njëriñu Afrique te dañu ràññee ne ci loolu ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko dafa dafa tey jii dafa dafa nekk kii mën na dë euh, màggal ki nga xamante ne moom moo jëmmal yoonu yoon woowu. yoonu taqali ko ak nooteel yoonu moom sa bopp yoonu yilif li nga xamante ne say meññeef la sa alal la nga mën cee liggéey ngir sa sa sa waa réew ngir sa doomi réew euh, ci loolu ñu fàttali ne bu yàggul rek am na lu mat ay euh, juróom-ñaar juróom-ñetti at am na ay euh, sénateur maanaam ay ndayu penc ci réew mu koy ci France ñu defoon benn téere bind ci ne ñoom dañoo bëgg soqali diggante France ak Afrique ci loolu ñu daal di bind lu mat fukki euh, fukki ponk yoo xamante ne jàpp nañu ponk ponk yi gën a mag daal di taxawal jëm ñaar fukki euh, dogal yoo xamante ne jàpp nañ ne lool loolu bu ñu ko defee euh, France dana gën a soqaliku ndax daal ndax te nga nee nañ nee nañ yéey Afrique mooy awaniru France loolu def naa ne lu lu lu lu lu a dégg la ndaxte. Afrique bi nga xamante ne moom moom ma sa nekk fu France di di nampe ween woo ne moomu ko France tey jii bu dee ba tekki daal ci àdduna bi ba dañ koy ci réew yu gën a mag la ko wéer ngi ko wéer rek ci ndooteel gu mu teg Afrique ñu ngi ko wéer ci teg tànk ak teg loxo yi nga xam ne teg na ko Afrique lépp lu fi baax ñu jël yóbbu seen réew bu dul woon Afrique duñ tekki dara ñoom si xam nañ ko moo tax ñu def rapport boobu ne Afrique dëgg-dëgg mooy awaniru France ñu ne ñu ne waaw lu tax ñun ñii nga xam ne ñooy ñoo ñooy doomi Afrique lu tax Afrique war war a nekk njëkk suñu suñu suñu tey ak suñu ëllëg bala muy jëriñ keneen kay na jëriñ suñu doom na jëriñ ñun ñu na jëriñ suñu sët ñu naan na jëriñ ñu naan ñëw ëllëg ko man moo tax loolu tamit dafa war a ne jamono ji nag yoonu Macky Sall woowu ak ñu ko jàppale mooy yoonu euh, nooteel guy wéy ci suñu réew nooteel guy wéy ci suñu askan ak suñu koom-koom suñu alal lépp loo xamante ne ñoo ko moom te war ko jëfandikoo ngir faj suñu soxla te ñu gis ne jamono yii ñi ñu ñu gënoon a bàkk ne ay réew ay réew démocratie lañu ci ci ci nekk ci waawu France nga xamante ne ñoo dag France yi gën a mag ci foofu lañ nekk boo ko jëlee Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire bu yàggul gis ngeen Alassane Ouattara li mu def soppali constitution ba par force dugal troisième mandat gañe élection yi génne Fatali yi jàmmaarloo ak askanam euh, gis ngeen ne beneen li mu def bu yàggul moom tamit dafa soppi li nga xamante ne mooy tëralinu wote yi indi fa li Macky Sall Macky Sall tudde woon parrainage fexe ba nga xamante ne du am opposition bu ko mën a euh, bu mën a jà jàkkaarlool ci wote présidentielle yi ñu ñëw kon loolu dafay wane ne ñooñu dëgg-dëgg ñu royukaay ci démocratie te Macky Sall ci tànk yooyu la nekk. ci tànk yooyu la nekk moo tax ñu ne dëgg-dëgg jot nag Afrique jaar ci yeneen yoon woo xamante ne euh, dana mën a ñu koy tardeel ñu koy jëmale kanam ñu koy suuxal ñu koy téye ci ndooteel bés ba nekk euh, moo tax loolu Ousmane Sonko dafa mën na nekk mën nañoo génn ci loolu wante bu ñu bëgg génn ci loolu soxlawul njiit boo xamante ne day teg boppam am yonent wala muy teg boppam jàmbaaru euh, ñeyu xare boo xamante ne jàpp ne amul moroom déedéet soxlawul loolu bu ñu bëggee génn ci guta Ousmane Sonko dafa ne dañoo war a am mbooloo moo xamante ne mbooloom dem réew mi lañ mbooloo bu mat mbooloo mbooloo moo xamante ne am nañu ràññee ci li nga xamante ne mooy si suñu nekkin wante tamit li nga xamante ne mooy suñu njariñ tey ak ëllëg bu ñu amee loolu yaakaar nañ ne dinañu mën a génn ci jafe-jafe yi nekk loolu nag dafa laaj jëf dafa laaj jëf ju dafa laaj taxawaay dafa laaj fit dafa laaj fit ak taxawaay euh, jëf jooju nag du jëf euh, ñu nekk ci bopp réew mi ni ñuy jëfe ñoom ndax ñoom ni ñuy jëfe mooy lan mooy jalgati jalgati jalgati euh, ni ñuy jëfe mooy nasaxal képp koo xamante ne amuloo seen seen seen seen xalaat bu méngoowuloo ak seen xalaat ak seen gisin ak seen taxawaay ñu bëgg laa fàggaagal jaay la doole jëlee la fi jàppal la tëj la kaso te dañuy fexe ne boo jàppal la nag ba pare jéem seet lan la lay teg lan la lay teg sa ndogal lan lañuy ñuy teg sa ndodd boobu doxali tamit dafa mel ne jamono ay ñoom Pinochet euh, wala ñoom Pitié Bota ci Afrique du Sud maanaam dictature bu bu bët sëkk moom lañu taxal ci réew mi jaral na leen ñuy dëggaatee li nga xam ne mooy sarti réew mi loi yi réew mi dañ koy dëggaatee saa su waaye leen ko ci mbir mi nekk ko naka lañu def jëm son Sonko jëm a jaar ci loi nga xamante ne moo ko jox euh, malaañu kiraayu ñu xotti ko ci loo xamante ne jaay doole la la loi du plus kese la doxal wante li ñu xam ne nag nguur gu yul nguur jàll na day jeex te doole ji dëgg-dëgg kan moo ko yor askan wi moo tax tey jii ñu ngi jàpp ne askanu Sénégal mu ngi gis nag ne euh, euh, fiir boobu ñu tegoon plan boobu ñu tegoon complot boobu ñu tegoon pousse vert day gën di leer ci kanamu nit ñi pousse vert day gën di leer ndax lépp lañ gis rek lépp lañ def rek dañoo di wëlbatiku wëlbatiku xëpp seen kaw weer leen ci kanamu askan wi yëpp euh, ci ci loolu bu demee ba jël aw yan loi maanaam yoon woo xamante ne dañ koo teg ngir jàppale jigéen ji ci seen xeex jàppale leen ci lépp lu leen di méttital di leen sonal lu mel ne sàkku wala siif jigéen loolu kenn mënuñu ko rafetlu dañ ko yàgg xeex ñëpp ñun ñi nga xam ne ñu ànd ak ñun ngir ñun doomu aadama dañ koo fonk muy ndaw di mag di góor di jigéen doomu aadama dafa am ax ak yeneen yoo xam ne dañ ko war a nangul di ko toppatoo Sénégal tamit xeex woowu jigéen yi ak ñi jàppale jigéen yi dañ cee euh, defal seen xar ci seen tànk tubéy ndax si seen sër boobu gën di am loi loi boobu nag dañoo gis ne tey jii ñoom lañ koy jariñoo ngir xotti ko li ñu koy xottee mooy lan dañu ne li li ko taxaw a jóg mooy euh, aar jigéen ñoom dañuy seet naka la ñuy jëfandikoo jigéen jëfandikoo jigéen tooxal ko maanaam ngir rek maanaam fexe ba daaneel bi nga xam ne dafa leen sonal ci wàllu politique. kooku defe naa ne képp kuy kuy wootee woo féministe. képp kuy woote woo xeex ngir taxawaayu jigéen jëm kanam da nga war a xeex tamit ni ñu jëfandikoo la loi sur le viol ndaxte dafa mé dafa dafa dafa dafa du mooyu nga xamante ne moo nekk taxawal sur le viol ndaxte dafa nanguwul ne jigéen dafa am dañ ko dañ ko war a ormal dañ ko war a ormal respecté ko teg ko foo xamante ne kenn du ko jariñoo kenn du ko kalakalee di ko teg fawukaay wala di ko teg ak loo xamante ne dañ koy dugate jël wala di ko meewee ko bëgg a jàpp Euh, loolu dafa doone misaal la tamit ci ni ñuy yore ñoom ni ñuy yore réew mi beneen misaal bi mooy fan yi ñu ngi wane ci télévision bi ak yeneen ay ngànnaay yu ñu dugal yeneen ne du ko fekk biir université ñu génne ko ci ay chambre mais nag li ñu jaaxal mooy ñu gis ngànnaay yooyu li ci bari dañ ne ngànnaay yi ci ëpp a ëpp ngànnaay yu bees tàq la nuroo bokk benn marque waa ñu ñu ñu nag kan moo ko jënd ak kan moo ko dugal ba université ñu ñuy laajte yan sawar lañ ca fekk yan yan yan yan néegu étudiant lañ fekk yooyu yooyu ngànnaay yan étudiant ñoo ko yore woon ba léegi woo woo nañu ñooñu wante dañ koy jëf jëfandikoo rek nga jëm tiital nit ñi ndax tey jii dañoo nekk ci li ñuy wax régime de terreur et de peur jëm tiital nit ñi ngir lan ngir kenn wañ yëngu. kenn wañu yëngu ku yëngu rek ñun ñu dal sa kaw euh, loolu moo tax euh, dem nañu ñoom ba wut xarala yi nga xamante ne tey jii ñoo gën a ñoo gën a màgg ci ci ci yu bees yi ngir rek ngir lan jëluñu xarala yooyu de jëluñu jumtukaay yooyu ngir xeex mbas bi jëluñu ko ngir euh, yokk njàng bi yokk faj bi yokk koom-koom bi dañ ko jël ngir lan ngir ñu teg ko ci wetu këru ki nga xamante ne dañu jàpp ne seen adversaire politique la di jëma yër yéen lan moo xeex ci lan moo xew ci biir këram lan moo xew sax ci biir néegam loolu rusul la loolu gàcce la ku am yooyu moyen war ngaa mën a seet nag moyen yooyu ñoo koy jëfandikoo ngir mu jëriñ réew mi wala koy jëfandikoo rek ngir yàq doomu aadama boo xamante ne defuloo dara lu dul jéem a seet koy ñu koy ñu ci ñu ko kanam moo tax ñu ñun dañuy du mooyu woowu doxalin ñu fi nekk jéem taxawal weneen doxalin boo xamante ne yeneen jëf yoo xamante ne askan wi lañ ci jiital maanaam lépp loo xamante ne jàpp nañ ne lu baax ci mi la dañ ciy woo askan yu mu taxaw ci am fit matuwaay boppam mat sëkk li mu doon fippu fippu ci jàmm ak salaam parce que ñun woote wuñu xeex woote ñu xuloo li ñu woote mooy yoon na dox li ñu woote mooy dëgg na dox te ñun dëgg lañu àndal ak yoon dëgg lañu àndal ak yoon moo tax euh, lépp loo xamante nag laaj na ko laaj ko jox ba mot sëkk waaw euh, lu ñu nangu doon it ñuy dóor ñuy nangu di di ñuy continuer di ñu dóor di ko nangu mukk waaw lu ñu nangu ñuy dëggaate nit ñi ñu leen jox ay woo non non non dañ koy wañ ba mot sëkk daan war la fa ak ñoom wante ñoom ñoom ñoo fi indi fitna ci réew mi ci taw réew ba léegi ñoo fi indi fitna pour su fekkee jàpp nit koo xam ne deful dara bu ko jafee faa rek ci jéem a seet la la lañ defe naa ne leer na ci bopp ci bopp ci kon askan wi lañuy wax ñun askan wi mbooloo mi mbooloo mi moom xeex bi du Ousmane Sonko moo ko moom du ko moom du kenn ci ñun mbooloo mi nga xamante ne moo tax ñuy moo tax ci politique mbooloo mi nga xam ne moo tax ñuy xeex na ko xeex boppam li nga xamante ne dafa naqari ci réew mi parce que tey bu ñu jëlee sax Covid bi Covid bi nga xamante ne dañ koy taafantoo maanaam dañuy taafantoo Covid ngir lan ngir kenn du am sañ-sañu wax kenn du am sañ-sañu ñaxtu kenn sax mënatoo la liggéey couvre-feu yeeg yooyu yëpp ngir nit ñi xañ leen seen ay seen ay sañ-sañ xañ leen seen àq ak yelleef ngir nag ñoom ñu a continuer di noot ñi di jëfandikoo alalu réew yi di kenn du wax loolu fu ñu ko wéer noot ñi yàq ci alalu réew yi jox ko say ñeñ te kenn du wax. loolu kenn amu ko ci àddina kenn du ko def fii ci Sénégal loolu na leer nañ duñ ko nangu kon boog duñu nangu tamit di continuer bëgg a mbubboo wala ñi ñu leen di xañ seen ak euh, li nga xamante ne tamit jàpp lañ ne euh, mooy suñu euh, ay ay ñàkk ñàkk yi nga xam ne indi nañ ko ci réew mi toujours ci affaire Covid bi ñàkk yooyu bu njëkkoon ñoom dañ ne kat dañ leen koo may ñu leen ma ci biir ñu leen ko jënd xam loolu ñaari ñu wut ñu ñu ne mu sañoon bu médecin yi borom xam-xam yi demee ba ne effectivement ñàkk yooyu lu baax la na ci ñëpp soobu ñu dañuy woo ñëpp ñu soobu si pour ñu mu seet naka la ñuy dimbalee ba ñu génn ci mbas bi wante du ñu nangu nag ñu politiquer suñu suñu suñu suñu suñu ñàkk yooyu. du ñu nangu ñu koy politique ndax Macky Sall dafa dafa ne réew mi moom mooy buur mooy pumi bi yaakaar na ne lu fi nekk moo ko moom lu fi mel ni moo ko moom bu ñi sax moom leen moom ba li nga xamante ne moomu ko alalu réew mi seet ku ma ko jëw dem maye ko fu mu ko yéen kan ci tàggu ndax yoon may na ko mu def loolu te tàgguwul assemblée nationale ne serait-ce que pour la parce que loolu moomu ko alalu réew mi nag dafa am lu yoon bi ne nii la war a demee kenn du ñu jaxase ak suñu suñu yeneen ndaxtango yi def Afrique ñun nous sommes des panafricanistes dañoo gëm ne Afrique dafa war a nekk benn ngir am doole di war a teg li war a teg ci àdduna bi wante kenn du ko def ci kaw ay naxay mbaay wala ci kaw ay politique toppale ak ay naafiq kon li nga xamante ne ñoo ko moom dañuy seet lu ñu koy bokk Afrique ci yoon loo xamante ne encore une fois dafay jëriñ mbooloo bi wante du du du du lay jëriñ kenn nit lu muy taxawantoo rek ngir jàll. Euh, euh, li nga xamante ni tamit mooy euh, yoonu yoonu Ousmane Sonko yoonu Ousmane Sonko lan yoonu Ousmane Sonko xaal la dama ne sànq ne wóote na ak yoon yi nga xam ne mooy dox fii te nag ñun loolu moo ñu boole moom de du leneen du du leneen. Euh, lu dul li ñu bokk gëm-gëm gëm ne mën nañoo génne suñu réew ci guddi guñ ko tàmbal gëm ne Afrique mën na nekk benn gëm ne Afrique mën na nekk ñiit tax ci àddina wi ndax li fi am jamono yi maam maamaat ba léegi Afrique da ko jariñoo woon ñeneen ñoo ñëw da ko jariñoo bàyyi ñu fi loolu nag lañ lañ bëgg a te loolu mën na nekk loolu moo tax ñu ne ñun ñii li nga xam ne moo ñu boole Ousmane Sonko. dañ ci wëy wax ne li li li ngóor yi bëggoon ngir ngir mu wéet ci xeex bi jàpp ko faagagal ko tooñ ko dal ci kaw dal ne du ci wéet tey du ci du ci wéet ëllëg ndax mbir mi du mbirum Ousmane Sonko mbirum Sénégal la mbirum Afrique la mbirum Sénégal tey Afrique tey euh, mbirum Sénégal ëllëg Afrique ëllëg loolu moo am solo ci xeex bi bu ñu ko gisee noonu nag dañuy jaar lu ñu ko waxee dañuy jaar fippu lu ñu lu nekk danañ ko danañ joor jox ko àq yu àq boobu bu sëkk moo tax ñu ne dañuy fexe ba lépp loo xamante ne tey jii mën nañ ko def ngir booloo ànd suñu biir dooleel li nga xam ne moom la ñu tuddee le projet Pastef maanaam li Pastef nisal li mu nisal ci doxalinu réew ci yorinu réew ci sellal loo xamante ne ñëpp lañ teg seen bët loo xam du am ay ay naxaate ay sàcc ay wuruj wante nag lépp lañ ci def rek day day nit ñi teg seen bët xam ne ngir njëriñu mbooloo mi la ngir njëriñu Sénégal la ngir njëriñu Afrique la woowu yoon nag dama ne Ousmane Sonko du ci du ci wéet ndaxte du moom lu jëmam lu jëmam du parteem ñun mbooloo mi la askan wi yëpp kon ñun woo Sénégal loolu la ñuy woo Afrique nañu nekk benn mu ñu nekk fii ci biir réew mi ak suñu mbokk yi nekk bitim réew ñun ñëpp benn lañu ñoo bokk réew mi ñoo ñoo ñoo ñoo ko ñoo ñoo ko war a ñoo ko mën a liggéey ñu wax tamit ne ñi nga xamante ne ay ay ay liggéeykat yu sol tëju la dañ ci war a gis seen bopp ngay policier ngay gendarme ngay soldat da nga war a xam ne doomu askan bi nga te boo ba fa nekk di liggéey ñu lay fay ci ñax fa askan wi la lay fayee kenn may dara askan wi mooy ñax joxe ay l'impôt ñu la ciy kon boobu na nga ormal askan wi tamit sa taxawaay booy booy booy atte na nga xool sa digganteeg yàlla. lépp loo xamante ne dëgg-dëgg dañ ko waat dañ ko waat ci kanamu yàlla waat ko ci kanamu askan wi ba fexe loolu nekk dëgg ndax lépp luy def faw mu mën koo layoo fii ci fii ñu nekk ci suuf wala ëllëg ci ci barsàq faaw ñu ñu ñu layoo ko loolu nag ku ci ku ciy bàyyiwul sa sa sa xel yaakaar na ne topp rek ñi nga xamante ne ñoom euh, seen seen seen bànneex seen mm, mm, bànneexu bopp lañ topp seen alal bopp lañu lañu jiital defe naa ne kon yàlla na sànq sànq réew mi sànq Afrique euh, moo tax ñu daaneel ne xeex bii day xeex bii day Ousmane Sonko du ci wéet te du ci masa wéet du ci wéet te du képp koo xamante ne ay bëgg réew nga képp koo xamee fonk nga ak ak yelleefu doomu aadama képp ku fonk Sénégal képp ku fonk Afrique ëllëgëm tayam ak ëllëgëm xeex boobu sa xeex la ñu ngi leen di woo ñu jëm ci euh, lëndoo taxaw ci taxawaay mat sëkk ba nga xamante ne ñu bëgg a fàggaagal Ousmane Sonko ñi bëgg a xa fàggaagal nisal boobu duñ duñ mën a am li ñu bëgg ndax bu ñu ko amee tey ah ñu ne lañ gis mooy affaire troisième mandat bii ñuy wax ne ne mu ci kenn wax ñoom ñi koy jëf ñi ngi jëf troisième mandat te dem nañ ba xeet 2024 ñoom ñu ngi wax léegi 2035 la ñu wax ne 2035 am na kenn ci ñoom ko waxoon bu yàggul 2035 wante sax dem dem nañu ba seen xel tey jii jéggi na 2035 ñu ngi xool naka la ñu fi toogee seen jiiru dund jël suñu réew def ko seen moomeelu bopp bu ñu paree jox seen goro wala jox seen doom wala jox seen xarit ñu ñoo ngi nekk fii di tumuraanke loolu dafa naa ne kenn koo xamante nit nga doo ko nangu tey doo ko nangu ëllëg